أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala di julli ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci suura ala imran ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñetti aaya aaya 93 94 ak 95 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala di ñu ci jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy subutu nasxi fi sharai al ilahi quatre-vingt à quatre-vingt-onze lañ yemoon kon 92 la ñuy jël tey kon benn aaya rek la ñuy jël tey muy lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun muy benn aaya bu ñu borom bi di jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy al birru wa huwa fi'lul xayri yahdi ila al janna benn aaya bi nekk sunu kanam borom bi dañu ci jàngal loolu ñu naan albir te mooy mbaax ak mbaax ci yàlla nag ak ak mbaax ci nit ñi dafa wuute léeg-léeg ci nit ñi mbaax moom mooy kuy joxe walla ku mën a kaf walla walla walla walla walla nit ñi dañoo gis benn façon mbaax boo xam ne moom la ñu jàpp mooy mbaax ba waa ji bu ko melee ci dëkk bi ku koy tagg walla ngay wax ci moom dara danga naan diw ak a baax waaye ci yàlla tamit programme am ni mu doxalee ak ni mu tëralale mooy yàlla moom ak mbaax daf ko définir mu ne lan mooy mbaax ku ko mel yaa baax ku ko melul baaxu ak kum mun doon te mooy fi'lul xayri te mooy dëkke jëf ju baax jëf joo xam ne yahdi ilal janna jëf ji yow mi koy def yoonu aljanna la la jaarale feeg yaa ngi ci rek soo bàyyiwul lii ngay def boo faatoo aljanna nga jëm loolu mooy albir yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ ko laaj ne ko lan mooy albir mooy mbaax mu tënk ci benn baat bu gàtt bu jafe mooy xusnul xulq mooy rafet jikko rafet jikko yonent bi nee na mbaax mooy nga rafet jikko kon ku rafetul jikko baaxoo sooy xool nag jikko mooy doomu aadama mooy nit ndax yonent bi yàlla daf ko yónni pour mu tabax jikko yi innama bu'istu li utammima makaribal axlaaq kon gis nga relation mbaax ak jikko foo gis ku baax jikko ji dafa baax foo gis kuñ naan kii di ko tagg rek jikko jee baax boroom xam-xam ne kullu sayin ida kasura raxusa illal adaba lépp lu mu mën a doon bu baree rek day lamba ah lépp lu mu doon bu baree lamba ba mu des jikko ju baax jikko ju rafet ak mbaax loolu rek moo dul lamb loolu kese kon aaya bii nekk sunu kanam li mu ñuy jàngal mooy ak mbaax te mooy jëf ju baax te mooy li lay dugal aljanna loolu mooy mbaax ñaareel mooy lan yabluga al abdu birru llahi wa ma indahu min naimi al axira hatta yunfiqu ma ahabba min amwalihi ilayhi allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci benn aaya bi ni nit du mën a am mbaaxu yàlla subhanahu wa taala mën a am xéewalu yàlla yi alaxira lu dul la mu gën a bëgg ci alalam buy joxe loolu lay joxe nga gis foofu ñun ndeysaan li ëpp ci ñun bu ñuy joxe aw desit la ñuy joxe bu dee yére bu ràpp bu dee ñam aw des bu dee xaalis pièce bu dee dàll mag bu dee lu mu mën a doon la ca gën a ràpp la ñuy joxe la ca gën a màgget la ca gën a màgget la nga xam ne amaana sax yenn saa yi bi ngay bale bi ngay balewaat kër gi wala ngay balewaat néeg bi yaa ngi ko génnee ci ron lal gi ñu ne la waaw yow lii léegi loo koy dee nag nga ne ah fàtte naa ko sax wal leen ma diw lu mu ñëwee nga ne waaye man de amoon naa fi benn yére boo xam ne xam naa di nga ko aajowoo nga jël jox ko lu mel noonu nag amoo ci tiyaaba bu dee ñam da ngay lekk ba desal joog a joxe amoo ci tiyaaba lu mu mën a doon bu dee bi nga koy joxe soxlaatoo ko amoo ci tiyaaba parce que joxe woo ko comme sarax waaye da nga koo joxe pour débarrasser wu ci pour mu noppal la pour nga am place bu yaatu lii nañ ko fi jëlee quoi parce que dafa xatal fii woo leen diw sax may naa jox naa ko amoo tiyaaba lan moo tax nga joxe ko aaye boobu la ñu yàlla di jàngal tey nag pour ñu xam lan mooy joxe est-ce que da ngay xëy rek joxe benn mbir boo xam ne soxlaa toog ba pare nag nit ñi di la ñaanal wala nit ñi di la ciy tagg saa yoo defee loolu amoo tiyaaba ñetteel bi mooy laa yudayiu lmaaruf inda allahi taala wallahi lu baax ku ko def du ràpp ci yàlla du réer ak lu mu mën doon lu mu mën a doon du sànku ci yàlla subhanahu wa taala bu day mbaax la xalla aw kasura néew na wala bëri na moo tax xorondom ba bi nit ñi di indi seeni addiye ci Suleymaan gàdde ay bagaani or urus xaalis xorondom bi ndeysaan matt benn pépp dugub gàddu ko di ko indil Suleymaan ñi ne waaw yow Suleymaan lu muy dee lii mu ne ah xanaa du yàlla tax yàlla rek moo tax ñuy joxe man yàlla moo ma ko moo tax ma indi ko kon yàlla subhanahu wa taala ak mbaax lépp loo def ngir moom lu mu bëri bëri bëri lu mu néew néew néew néew du réer ci yàlla tabaraka wa taala taalama uridu bihi wajha allah feek li tax nga koy def yàlla rek a tax yégal ne réerul wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen def ci mbaax bu fekkee yàlla rek moo tax di ngeen ko fekk ci yàlla loolu dina leen fàttali histoire abu bakrin siddiq radiallahu anhu wa ardaahu keroog ba waaja tuumaale yaay aysa njaaloo masta mbir mi leer ñu vérifié ko du dëgg alquran wàcce di setal yaay aysa abu bakar ba histoire bi leeree na waa ji ci biir këram la abu bakar yoraloon ko këram mu dëkk biir aw kër Aboubacar fayul location fayul courant fayul ndox joxewul dépasse Aboubacar na ko yow de pare naa ci yow xaw ma kan de waaye sama kër gi dootoo fi lekk dootoo fi naan yàlla daal di waa ci ay na Aboubacar xanaa taxuma woon Aboubacar ne aha kay toogal naa la doon jox benn naa la jox ñaar ndax yàlla tax gis ngeen ñooñu alxuraan moo leen doon defar moo tax lu ngërëmal yàlla rek lan bëggoon bu doon kenn ci ñun fii la histoire boobu dal ba àdduna bi yëpp àndoon ñaan danga naan wuu kii kay saye waaye xoolal Aboubacar aaye wàcc rek yàlla mu ne waa Aboubacar yow loolu nga doon def xanaa du maa tax mu ne ah kay kon nag tooga na waa ji toog dama ko doon jox benn dinaa ko jox ñaar ndax man li may def yàlla tax kon mbokk jullit yi benn aaya boobu ñuy jël borom bi subhanahu wa taala lii lañ ciy jàngal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليم يخبر تعالى عباده المؤمنين الراغبين في بره borom bi subhanahu wa taala mi ngi xabaar di xamal jaamam yi nga xam ne dañoo xemmem mbaaxam moom yàlla tabaraka wa taala jëlee nañ ci borom xam-xam yi ñu ne yutlaq lafzul birri alal amalu saalih baatu bir borom xam-xam yi nee nañ boyal nañ ko firi ko bépp jëf bu baax lépp lu baax rek bir ak lu mu mën a doon wa huwa jimaauhu wa sawaabuhu dafa boole moom jëf jooju bépp mbir bu nit di def di ci am tiyaaba di ci am fayu yàlla rek waa jooju mu ngi ci bir mu ngi ci lu baax ñëw na ci saxiix yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na alaykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق عندنا ما لين دي دنك ngeen deggu ngalla way deggu len alaykum bisidqi ma len di denk ngeen deggu ndax deggu day yobbu nit ci mbaax mbaax day yóbbu nit ci aljanna nit du dañ di dëggu di taqoo dëgg ba ñu bind ko ca yàlla ci ñu dëggu ñi mu ne way yaaku maa ngi leen di mooy tundikuloo wal kadiba fen lu tax fa innal kadiba fen yahdi dafay yóbbu nit ilal fujuur ci kàccoore boo taamee fen di fen di fen xam nga lan ngay mujj nekk kàccoor lan mooy kàccoor ah mooy koo xam ne rusatul dara amatul kerse mun naa saw ci jàkk ci miir bi mun na faa dugal cigarette rusatul kerse jeex nag loolu mooy kàccoore soo eggee ci daraja boobu lan moo yóbbu waa ji ci mu nekk kàccoor fen moo ko fa yóbbu wa inna alfujura yahdi ila annar kàccoore googu xam nga fu mu jëme waaji safara yonent bi nee na nit du dañ di fen di taqoo fen wa yataharra alkazib taqoo ko hatta yuktab inda allahi kazab ba ñu bind ko ca yàlla ci fenkat ya kii ci fenkat yi la boobu kon borom baa ngi xabaar ñun ñi nga xam ne dañoo xemmim ak mbaax xemmem xéewal yàlla bi an yunjihim min annaar ne yàlla nee na dinaa leen musal ci safara wa yudxilihumul janna dinaa leen dugal aljanna bi annahum lan yazfaru bi matlubihim min rabbihim hatta yunfiqu min atyabi amwalihim wa anfasiha indahum wa ahabbiha ilayhim waaw borom bi nee na bu dee daal da ngeen ragal safara bëgg aljanna bëgg a daw sama mer am sama kontante rëcc sama mbugal dugg sama aljanna na ngeen yëg ne du ngeen mën a am loolu lu dul hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu dul da ngeen a joxe li ngeen gën a bëgg moo tax mu ne lan tanaalu lan déedéet du mën a nekk tanaalu du ngeen mën a am albirra mbaax xatta lu dul tunfiqu da ngeen a joxe mimma ca la nga xam ne tuhibbuuna moom ngeen gën a bëgg bu dee yére la ban yére la ban yére ngay joxe bi nga gën a bëgg ci yére yi bu doon xaalis la ca la nga gën a bëgg ngay joxe bu doon da ngay yekkal nit ca yekk yu njëkk ya teggi fii stamp fii teg teg teg bi nga naan waa kër gi kaay leen boobu ngay joxe waaye fii gis ngeen ñun ñu ñuy joxe lu nu sonal rek lu nu sonal même bu doon sarax la sax waa ji ne ngir yàlla nga nii nii xol bi danaan la moytul billet yi nga gis loxo bi nekk ci biir naan nii di jeex waaw loolu billet yi la de bàyyi ko waaw loolu pièce yi la waaye tamit boobu dafa dijj seetal yu ndaw yi maanaam xam nga gémmiñ gi waxul waaye xol bi mi ngi communiquer ak loxo bi lu tax bi nga dugalee rek génnul lu tax nga tànn am na kuy communiquer ak yow mooy xol bi pour nit nag mucc ci yu baree bari mooy foog mu xeex ak xolam li sax doo mën a baax léeg-léeg sax nit am yéene mbaax nit am yéene mbaax dinaa def nangam dinaa def nangam pour baax waaye xol bi tere ko ko moo tax boo xeexul ak sa xol rek am nga problème léegi nga ni am naa fas yéene naa yé naa fi la guddi suba may naa fi la incha allah bët sa ah nga tëdd ba une heure rek nga ne ah waxoon naa ko dañu ne waay suba dimanche la garaawul bàyyi ba lundi ah garaawul quoi wala nga ni war naa woor lundi lundi nga préparé ay affaire sax yenn saa yi nga préparé xëdd nga jékki-jékki dégg ñu nodd ay 3 4 heures allah nga garaaw waaw naa ko proposé ba jeudi war lundi baax na nga war jeudi baax na bàyyi ba jeudi rek nga nu la seytaane di def voilà def la nii lay lay def nii lay lay def nii nii léegi nag moo tax ndeysaan bokk na ci min wasaaya al imam al banna rahimahullah imam banna day wax qum ila salaat mahma haysuma samita nida dafa bokk imam banna dafa def benn benn feuille mu def ci fukki ndénkaane mu koy dénk frère musulman yi ixwaan ixwaanul muslimin bokk na ci ndénkaane yooyu mu ne saa yoo déggee noddu rek jugal julli saa yoo déggee nodd jugul ak waxtu dégg nga ne dugg rek jugul gis nga loolu xam nga kañ nga koy xam fajar nga dégg nodd da ngaa war a yeewu 5 heures 4 heures et demi nga dégg nodd bi wala sax nga rek la sa portable ne ke ne ne ne ne ne nga ni nii gis 4 heures et demi noonu non naa xaar ba 5 heures quoi. nga jékki-jékki dégg jàkk ba ci koñ bi nga war gis. cinq heures dem nga ne na na xaar ba mooy kaar quoi doo julli ji fajar jàkk gis nga boo reppee ba tëdd xam nga kañ nga yeewu asalaatu asalaamu aleykum inna lillahi pare nga moo tax ndeysaan ya borom bi nee na du nu mën a am lu baax mukk mukk ci kaw suuf lu dul ne la nu gën a bëgg sunuy waxtu lanu gën a bëgg sunu alal lanu gën a bëgg sunu lanu gën a bëgg sunu moom la ñuy joxe li nga gën a bëgg léegi nag loolu fépp nga koy xool souvent ñu ne li nga gën a bëgg benn waaye jàpp ne mbubb kese la wala xaalis kese la wala wala déedéet ci lépp lu nekk am na loo ci gën a bëgg doo mën a am li nga bëgg ci yàlla lu dul yow it li nga gën a bëgg ngay bàyyi jox ko yàlla loolu mooy wax bi moo tax mu ne lan gis nga daan ngeen wax ci lan yéen ñi jàng naaxu tanaalul birra du ngeen mën a am ak mokk ak mbaax mukk gis ngeen arab baat yu doy waar la al birr baat bi boo maasee ba kasra bi damma lu muy nekk luñ koy liire boo jëlee bii bi nga maas ko bu lu muy nekk al burru mu nekk dugub soo ko defee fatxa mu nekk suuf al barru te lépp ay maska kese la boo commencé damm dootul nekk bir boo ko commencé fatha barra dootul nekk bir te saa yoo commencé firi bi soppeeku booba ngeen di jàng ci xulaas rabi naas nga gis ku jàng xulaas rabi naax ba bi rabi naas ba mu jeex mu ne minal jannati wan naasi saa yoo jàngee minal jannati mooy da nga ne yàlla na la yàlla musal ci aljanna min aljannati mais yal na mu yàlla musal ci aljanna lan nga waroon wax yal na mu yàlla musal ci jinne yi min aljinnati nga dem ne aljanna te te nit ñi dañuy def yooyu dañuy jàpp alxuraan bi di changer masque yi ah benn masque kese la jiim bi fatxa ak kasra mooy moo nekk nii fii mu ne lan tanaalul birra du ngeen mën a am ak mbaax ci seen boroom kañ hatta tunfiqu lu dul ngeen joxe mimma tuhibbuuna ca la ngeen bëgg gis nga min attiya bi ci li gën a teey amwaalikum seen alal wa anfasiha li ci gën a seer inda allahi ci yàlla gis ngeen abu bakrin siddiq yonent bi day laaj alal pour ñu xeexi ku nekk indi gaa yi indi gaa yi indi ñi indi ñi indi Aboubacar indi alalam lépp ñu ne ko Aboubacar lu des kër ga mu ne bàyyi naa leen yàlla ak yonent bi lépp a ngi nii yonent yàlla ak yonent laa bàyyee waa kër ga gis nga donc desalu dara parce que dafa xam ne yàlla la ñuy jox yàlla subhanahu wa taala la ñuy jox tey li moo tardeel juliti mooy sarax yeeg joxe bi nekkatul ngir yàlla wala dootoo jël lu baax wala dafa too ko ngir dëgg-dëgg pas-pas waaw ay xooñ ak ay yax ak ay yére yi lakk ak da ngay dégg ñu ne yére bu lakk bul ko solati de lu mu seer seer nga jël ko joxe nga xam ne boo joxee yére bu lakk ban tiyaaba nga jam xam nga tiyaaba parce que solatuloo ko bëggatuloo ko kon li nga gën a bëgg moom ngay joxe pour yàlla xam ne dangaa bëgg dara pour da ngay dégg sax gars yi ne ku bëgg dara da ngay def dara da nga bëgg tiyaaba foog mu jaral la nga yeewu yenn heure yi foog mu jaral la nga def yenn woor yi foog mu jaral la nga def yenn naafile yi foog mu jaral la nga dugal sa loxo sa poos def yenn sacrifice ci sa alal waxtu wi alal bi ah lépp ngay boole pour nga am tiyaaba borom bi subhanahu wa taala mu ne sa alal li ci gën a teey gën cee seer nga bëgg ko ci sa xol moom ngay joxe allahu akbar moo tax gis nga gaa yi baax yi démb suñu la nee jox ma dara ngir yàlla rek nga ni jëlal ngir yàlla jëlal gisoon naa benn oustaz wala na ko yàlla yërëm ndax génn àdduna saa yu njulli woon ci jumaa ji génn imaam bi xool ko ne ko sa yére bi rafet na de mu ne ko ah da nga ko bëgg ah bëgg naa ko kay mu ne ko waa waa kay insha allah dëgg dégg naa li nga wax nañ dem kër ga naan ataaya loolu mu koy wax noonu nañ dem kër ga naan ataaya xam nga lan la maanaam daf koy daf koy wommat yóbbu ko kër ga pour simmeeku sol beneen yére lem mbubb mi def ci parfum dugal ko ci mbuus bu ko bu waa ji di ñibbi mu gunge ko bu bu kër gi ne ko am waa ji du ko am lu mu ko jox de yéen a ma gërëm xool rek muy mbubb mi mu solal bi mu ko doon laaj loolu benn mbokk fii buy ñëw dar si def na ma ko yére bi laa jullee korite ñëw na fii dar si ma ne ko waaye sa kaala gi ak sa mbubb mi rafet na de mu noppi ci koor la woon wala tabaski tabaski la tabaski la ma nekk guddi kër ga rek mu mu nuyoo indi benn mbuus xaw ma lu ci nekk ma nuyu ko nangam nangam après ñu toog mu daan may jox mbuus mi mu ne ñu bi ma génnee rek mu yére ba ndeysaan yàlla na ko yàlla fay am na ba léegi ñuy jéem a dund sunna yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale wala mu ko daan def sunu ustaas boobu noonu la daan def imaam bi te boobu imaam bi moom rek lay bañ a gis waaw imaam bi mun na koo saaga léegi léegi timis ñaan ko mbumbu gee mu may ko ko wala ne ko sama sukaru jabet jeex na mu ne ko nan dem ma jox la gis ngeen parce que tiyaaba la joxu ko yàlla lay jox subhanahu wa taala suñu borom ne wama tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe na ngeen déglu baat bi bu baax wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe min shay ci lu mu mën a doon fa inna allaha bihi alim loolu yàlla xam na ko est-ce que dégg ngeen wax bi déedéet ngeen delluwaat yàlla mu ne wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe borom baa ngi xabaar di dalal xel alal munfiqiina ci ñiy joxe ah est-ce que man sama lii ma war a joxe ah est-ce que du ma perte est-ce que dinaa ci am tiyaaba est-ce que dinañ ma fay est-ce que yàlla dina mok yàlla ne kaay mox la wa ma tunfiqu ndeysaan gis nga baat bi mu utilisé ma ne lépp lu ngeen mën a joxe yàllaa ngi dalal xelu gaa yi joxe pour ñu xam ne pertuñ benn waaye dafa tabax ci dafa taxaw ci wetu kaaba gi naan fii sabilillah benn waaye fekk ko fa rek jox ko enveloppe mu ne fii sabilillah waaye joxaat ko beneen enveloppe mu ne fii sabilillah waaye joxaat ko beneen enveloppe nit ñi benn waaye ne ko yow kenn ki rek ngay jox di mu ne déggoo li muy wax xanaa bu dakkul de lii du dakk déggoo li muy wax la ko wax mu ne lu muy wax mu ne mu ngi may laaj ngir yàlla ma koy jox ngir yàlla wala ñooñu seen dégg
xoolul li mu koy jox xool li mu koy jox ngir yàlla mu koy jox ngir yàlla mu ne am ngir yàlla mu ne am ngir yàlla mu ne am ñu ne ko benn nit ki la mu ne déggoo li muy wax ndeysaan xoola yàlla day dalal sunu xel boo toogoon ci kanamu président muy dalal sa xel ah naan la waaw yëg naa la dégg naa sa tur xam naa la ah looy xalaat gars yi ñun ñëpp ku ne ku mu doon ci ñun fii looy xalaat ah waaye nii nag ñiy joxe yàllaa ngi dalal seen xel yéen ñiy joxe ndax am na ci jàkka ji ñuy joxe yàllaa ngi dalal seen xel yàlla nee na leen dalal leen seen xel ci li ngeen di joxe waaye nag afdalu amwalihim seen gën gi alal bi an yunfiqu moo xam min qalil dafa tuuti aw kasir dafa bari nafis dafa cher lu mu mën a doon yàlla nee na yéen ñiy joxe lu mu mën a mën a mën a mën a doon wa ma tunfiqu amul lenn lu ngeen di joxe min shay baat boobu jàpp leen ko ci lu mu mën a doon xanaa benn waaye danaan non man wax dëgg yàlla bëggoon naa joxe alal mais aw ma alal yàlla wax yàlla teggil na la coono lan la wax lu mu mën a doon ndeysaan moo tax yonent bi waxoon ne Aïcha wallaay boo wooree ba ngoon sax sa tàndarma bi ngay dogee xar ko joxe ngàdd bi xaral tàndarma bi ci digg bi nga joxe genn wàll gi nga lekk genn wàll gi wala min shay yàlla ne lu ngeen mën a joxe ci lu mu mën a doon lu mu mën a doon da nga ni man ah bo ndox amatul tuuti de ah min shay ak lu mu mën a nekk rek xoola baat boobu la yàlla di shay shay dara lu mu mën a toll lan la yàlla wax fa inna allaha naka yàlla bihi ci loolu nga joxe alim xam na ko ndeysaan kon kay ñiy joxe war nañoo dalal xel xam ne yàlla la ñuy jox te kiy joxe yàlla bi mu la xamee ba pare balaa ngay jox ki ngay jox muy tàllal loxoom nga ciy teg li nga koy jox yàlla nga njëkk a jox ba pare ndax ku tax nga génne ko yàlla li tax nga jox ko ko yàlla seetoo ki ngay jox nu mu mel fu mu dëkk fu mu bokk am na walla amul yow lan moo tax nga koy jox yàlla te loolu nga koy jox dalalal sa xel amal confiance ne fa inna allah bihi alim yàlla xam na loolu pertoo ko réerul benn yoon borom bi subhanahu wa taala mu ne benn waay bu tudd abu talha radiallahu anhu yaqul ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allah lan tanalu lbirr حتى تنفقوا مما تحبون وإن من أحب من أحب أموالي إلي برحا حديقة فاجعلها حيث أراك الله يا رسول الله لسان abu talaa dafa ñëw ci yonent bi ne yonent tey de damaa ñëw di joxe ci yoonu yàlla yonent bi ne ko han mu ne waaw waaw yow abu talha lu tax ngay joxe mu ne du yàlla ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yooyu ne ko waaw mu ne ko xam nga lan laa gën a bëgg man ci sama àdduna tey moom laay joxe mu ne ko lan la mu ne ko sama tool bi joxe naa ko fi sabilillah benn jardin bu mu amoon nga xam ne fruits yi ñaari yoon lay ñor day witt mu ñoraat mu wittaat mu jël yépp joxe ko fi sabilillah est ce que mbokk yi jàpp ngeen ne ñooñu mën na ñëw buuxanteeg ñoom buntu aljanna est ce que jàpp ngeen ne mën na ñëw buuxanteeg Abdurahman ibnu Awf ki yenent bi waxoon ne Abdurahman gis naa la ngay dugg aljanna di wa di darngu de mu ne ko ah darngu raam mooy raam di dugg àjjana de mais day raam mu ne ah yéen ne waaw mu ne baax na deful deux jours yonente ne ko Abdourahman mu ne maa la gis nga dugg àjjana di waaxu waaxu yu tàng lu mu def yokk la
lu mu def wala góorgóorlu mbokk yi ñun ku ne woon da nga dugg àjjana àjjana di raam sax fii looy def alhamdulilahi rabbil alamin dañ lay daajal benn 16 or 16 or lan lay tegal la ilaha illa dugg àjjana kese booy raam ak booy darngoog booy watatu sax baax na na nga dugg rek waaye xoolal waa ji mu ne ah dugg àjjana mën a di raam man mukk yonente bi woo ko ne ko maa la gis ngay waaxu waaxu yu tàng jër ay jéego yu dëgër këng ñu mel noonu mënuñu njëkkanteeg ñoom buntu àjjana c'est parce que ñoom daf leen koo jaral xoolal Umar ibn al-Khattab Ousmane ibn Affan Ousmane jënd na indi na benn njëgg boo xam ne njëgg mi bi mu ne cëpp Médine fekk jamono bekkoor la maral tar xiif commerçant yi ñoo war Ousmane Ousmane ku moom bagage yi mu ne man waaw ñun de bagage yooyu ñuy tax a jóg mu ne bismillah lu ngeen bëgg ñu ne ko saaku booy jaay benn dañ ko jënd ñaar mu ne gis naa ku leen ëppale ñu ne ko booy jaay ñaar dañ ko jënd ñett mu ne gis naa ku leen ëppale booy jënd ñett dañ ko jënd ñeenti dërëm mu ne gis naa ku leen ëppale ñeent dañ ko jënd juróom mu ne gis naa ku leen ëppale juróom dañ ko jënd juróom benn juróom benn dañ ko jënd juróom ñaar juróom ñaar dañ ko jënd juróom ñett juróom ñett dañ ko jënd juróom ñeent ñu ne ko mu ne leen gis naa ku leen ëppale ñu ne ko ñun foofu lañ mën a yem mu ne yàlla nee na benn saako bu nekk fukk man amila man jaa ah man jaa falahu asru am saaliha yàlla nee na ma joxe benn fay ba fukk waaye ne ko ñun mënuñu ko mun a dugal leen kër gu nekk ay saako joxe naa ko fi sabilillah Ousmane joxe alalam joxe alalam ba yoon ne ko Ousmane mu naa mu ne dafa lu la neex yàlla xoolatu la loolu ku koy kuñ ko waxoon fii Sénégal tey loolu góor gi doon wax vendredi bële mu ne gars yi dañoo nekk ci benn liggéey liggéeyu sëriñ ñu liggéey liggéey liggéey liggéey ba sonn ba ngoon jot nag naaj bi tàng jër ñoom ñëpp ñu toog ci naaj bi di xaar sëriñ bi pour mu ñëw mu toog toog toog toog ba ker gi sedd mu yëg ci kaw balcon bi tiim leen ne leen waaw leen góor waaw leen góor noonu rekk la nii rekk la yàlla na ngeen fi yàgg ñëw yàgg ma fee fekk yàgg maa jox ma yàgg a nangu jërëjëf tuf tuf tuf dem leen seen aajo faju na waa ji nee na ma dem mënumaa nelaw ndax lii dafa yomb trop ma dem mënumaa nelaw affaire bi jàpp ma mënumaa nelaw wax na dëgg de waaw leen góor waaw leen góor nii rekk la nii rekk la yàlla ngeen fee yàgg a ñëw yàgg ma fee fekk yàgg maa jox ma yàgg a nangu kan la ñaanal allahu akbar yal nañu yàlla jubal yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko abu talha ndeysaan mu ne yonent yonent xam nga lan laa gën a bëgg mu ne ah mu ne ko sama tool bi yow yonent mu ne ah mu ne faj alha haysu araka allah tool baa ngi sa loxo foo gis ne fa la yàlla soxla tool bi rek dugal ko foofu ya rasulallah fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam maalun raabihun aw raaji'un ij'alha fi aqrabaika ndeysaan fa ja'alaha fi aqrabaihi gis nga yonent allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam wala yonent bi dëgg la yàlla ko yónni yonent bi mënoon naa jël tool bi rek waaye ba waa ji ne mu ne bilaal ana nga bilaal am naa tool waa ji jox na ma tool xam nga lu mu ko wax waay waay waay waay waay alal ju am barke waay waaye tool bi am barke xam nga nu ñuy def waa ji naa mu ne ko jox ko say mbokk ñi la gën a jege jox ko ñi la gën a jege ndeysaan ñu jaay tool bi dajale miskin waajooju yëpp mbokkam yi ñu jox leen ñëpp ñëpp am alal jox ko say mbokk jox ko say mbokk ñi la gën a jege jox ko aqrabaika ñi la gën a jege nañ leen ko jox ngeen yonant bi est-ce que mënu koon def ci poosam ah moo fi toogal yàlla moom la yàlla moom la ko waa ji jox ne ko xoolal fu yàlla bëgg tool bi ñu def ko fa nga def ko fa billaahi wallaahi taala wallaahi bu ñu toppoon yonent bi du ñu am problème tey kon kenn du xiif ci dëkk bi kenn du mar kon kenn du denc dërëm ndax yonent bi denc loon dërëm lépp daf ko jox miskin yi yonent bi danaan fayal bor sax néew yi dee yi néew yi néew yi néew yi yonent bi danaan doon fayal bor néew yi su nit faatu woon ñu indi ko ci kanamam day ñëw ne kii am na bor ñu ne waaw mu ne maa koy fay bi nga xamante ne amatul suñ ne kii am na bor mu ne waaw mu ne ah jullee leen seen mbokk lu dul kenn ci fameem ñoo ne déet yonent jullee ko dinaa fay bor bi yonent bi doog koo jullee sallallahu alayhi wa sallam kon gis ngeen yonent bi xattaa ci joxe sax boobu mu naan na ngeen joxe ñan la ci jiital say mbokk say mbokk lu baax loolu ngay joxe kan la ci yonent bi jiital ci abu talha mu ne ko déedéet nañ ko jox say mbokk ñu jël alal ji jël tool bi ndeysaan daal di koy jox mbokki waa ji mu ne fi aqraba yi hassan ibnu saabit xoolal waa ji bokk na ci ñu ko jege woon hassan ibnu saabit ah ubay ibnu kaab radiallahu anhum ajmain xoolal te ñaar ñi ci ponkali sahaaba yi lañ bokkoon te ñii ci ay jege ñaaleem lañ ñu ne ñii sax ci ñooñu lañ bokkoon kon doomi ndey yi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na baadara al ashab ridwanullahi alayhim bi bitas bi tasadduqi bi ahabi amwalihim aya bi bi mu wàccee borom xam-xam yi nee na ñi yonent bi jàng aaya bi sahaaba yi dégg ko ñoom ñëpp dañoo gaawtu ci joxe seeni alal ci lu ñu gën a bëgg ñoom ñëpp Omar ibnul Xataab daal di goreel benn jaamam waaw Omar ibnul Xataab daal di mbaay yàlla benn jaamam ndeysaan gars yi ku nekk commencé ku nekk waaw ñii di goreel jaam ñii di génne seen alal nee na ci la Abu Talha mi daal di joxe toolam ndeysaan daal ne nañ ko joxe fi sabilillah nee na xaari xaarisata moom fas la joxe woon fasam la joxe woon daan nañ ko joxe fas bi mu liggéeyal yàlla ci jihaad gars yi ku nekk rek génne na alalam keroog bi aaya bi wàccee yàlla ne leen lan tanaalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun ku nekk sa alal nga delluwaat la gën a cher nga génne daal di koy joxe kon sunu bindu tey mooy al birr wa huwa fi'lul xayr yahdi ila al janna mbaax gi ñuy wax mooy jëf ju baax joo xam ne suñ ci saxee daf ñuy orienté aljanna te suñu jubluwaay bu gën a rëy mooy lan mooy dugg aljanna subhanahu wa taala yal na yàlla may ñu aljanna jooju yàlla yàlla def suñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu